jëf ya jëf wàll ci lindiil di jëfi ndaw yi kirist yónni yow tewofiil téere bu jëkk bi ma bindoon ëmb na lépp lu yeesu tàmbali woon jëf ak a jàngale ba ca bés ba ko yàlla yéege ci asamaan lu ko jiitu joxoon na ay ndigal jaare ci xel mu sell mi jëm ci ndaw yamu tànnoon gannaaw ay coonoom ñëw na ci ñoom di leen woon ay firnde yu bari te wér ne mu ngi dund mu feeñu leen diirub ñeent fukki fan di diisoo ak ñoom ci lu jëm ci nguuru yàlla am bés muy lekk ak ñoom mu sant leen ne bu leen sori Yerusalem waaye ngeen xaar li baay bi dige woon te ma waxoon leen ko ndaxte Yaxya daana sóob nit ñi ci ndox waaye yéen des na leen sóob ci xel mu sell mi fii ak ay fan yu néew bi nu dajaloo ak moom nag ñu laaj ko borom bi ndaxte jamono ji nga yëkkatiwaat nguuru Israyel mu tontu leen ngeen xam jamono yi ak saa yi baay bi dogal ci sañsañam loolu mayuñu leen ko waaye bu xel mu sell mi ñëwee ci yéen dingeen jot kàttan te nekk samay seede ci dëkku Yerusalem ci diiwaanu Yude ak Samari yépp ak ba fa àddina yem bi mu waxee loolu te ñu di ko xool yàlla yéege na ko te aw niir jël ko làq ko seeni bët bi muy dem nag te ñu ne jàkk asamaan ñaar ñu sol yu weex daldi ne séef taxaw ci seen wet ñu ne leen yéen waa galile lu tax ngeen taxaw di xool ci asamaan yeesu ma ñu jële ci seen biir yéege ko asamaan dina dellusi ci ngeen ko gise muy dem asamaan ñu jóge ca tund woowu ñuy wax tund olivier te mu dànd ak yerusalem lu tolloo ak kilomètre ñu daldi dellu yerusalem bi ñu dikkee ñu yéeg ca néeg ba sut ca taax ma fa ñuy dal ñoo doon piyeer yowaana saak ak andre filip ak toma bertilimi ak macce saak doomu alfe ak simon mi bokkoon ci mbooloo mi ñuy wax ñi farlu ci moom seen réew ak yu daadoomu saak ñoom ñépp ñoo bokk menn xel di wéy ci ñaan ci yàlla ànd ak jigéen ñi ak maryaama ndeyu yéesu ak rakki yéesu yu góor ca bis ya nag piyeer taxaw ca diggu mbokk ya di mbooloo mu tollu ni téeméer ak ñaar fukk mu ne leen mbokk yi li xel mu sell mi waxoon ci mbind mi jaarale ko ci gémmiñu daawuda faaw mu am waxoon na ci mbirum yudaa mi womat ñi jàpp yéesu te mu bokkoon ci nun ba am cër ci liggéey bi pey gi yudaa jotoon ci ñaawteefam mu jënd ci tool daanu fa ba fàcc ay butitam tuuru loolu siiwoon na ci waa yerusalem moo tax ci seen lakk ñuy tudde tool ba akeldema maanaam toolu deret piyeer teg ce ne ndaxte lii lañu bind ci téereb saboor na këram gàntal bu fa kenn dëkk te it na keneen bey sasam kon ñeel nanu nu tànn kenn ci ñu bokk ak nun diir bi Yeesu doon dem ak a dikk ci sunu biir li dale ci bi ko Yaxya soobe ci ndox ba bés ba ko yàlla jële ci sunu biir yéege ko kooku war naa ànd ak nun di seedeel ndekkiteel yeesu bi ko piyeer waxe ñu tudd ñaar yusufa mi ñu dippe barseba te di ko dakkantele yustus moom ak matiyaas ñu ñaan ci yàlla ne borom bi yow mi xam xolu nit ñépp wonnu ki nga tànn ci ñaar ñii mu yenu liggéey yu nekk sa ndaw wuutu yuda mi ko bàyyi dem berebam noonu ñu boole leen tegoo ay bant bant ba dal ca Matiyaas mu fekki fukki ndaw ya ak benn